secret bi daal di génn ñu ko ñun nag dafa am secret bu ñu déeyoon mm-hmm. yonent bi moo waxoon mm-hmm. ne bu ngeen julleetee ba bari dee leen def lii mm-hmm. ñu ne ah dén d su ngeen ko defee ñu defati ko ñoom ko ah, ñu dem bi ci loxo yàlla la ne koo la ko yàlla jox yàlla ah kay yàlla yàlla kay moom la ñu soxla waaye yow moom la ñu soxla. kon nag boo julee ba pare. Ah. tàllal la say loxo yàlla subhanahu wa taala. xanaa lum niiw niiw yi. Ah. nga ñaan ko. wallahi wallahi ci baaxee gi mu la baaxee ala ni'matil islam. Mm-hmm. Mm-hmm. yàlla maa ngi lay sant. Mm-hmm. ci xéewal gi nga ma xéewal ma bokk ci islam. xam nga bokk ci islam du xel mu neex. du mën a lijjanti. du am njàmbaar. xéewalu yàlla la. xéewalu yàlla la nga sant ci xéewal boobu comme ni nga ko waxee. dëgg la dëgg la jërëjëf foofu leer na mhm. foog naa yaakaar naa ne mbokki kat yu julli gi mhm. ni ngeen ko waxe won ñu leralal leen ko yaakaar naa ne leer na ci yeen mhm. te contane ñi tam ci niñ ko leralé waaye fiñ tollu ni nak ñu ci koor gi te fas yene ci genn inshallah allah ñu yalla may ñu genn ci jamm ak ci dara Muhammad te fekke bu deewen bi mo tam ànd ak tal ñu baako ci wax ne dañu wara def murum koor murum koor nuñ koy genné waaw murum koor lu am solo la ci wàllu koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadis boo xam ne hmm. borom xam-xam yépp d'accord nañ ci hmm. ñu ne weeru koor dañ koy aj hmm. fan lañ koy aj maa bayna sama wal ard loolu la yonent bi wax emal foofu bismillah ma ñëw <laughs> mbokk déglukat yi ku bugg a kool nag pour bokk ci waxtaan bi international bi 437 3910 437 3910 international local bi 4375905 4375905 4375905 ngeen call pour bokk ci waxtaan bi ñu ngi nuyu nag ay ñoom aji mari Cissé ajaratu Xadi Senghor ñoom aji bintu ma maron ñoo ñëpp ñu ngi leen a nuyu 4375905 pour ngeen bokk ci call bi delluwaatal fu ñu koy aj waaw kay weeru koor koy aj maa bayna sama wal ard luy loolu laa yurfau illa bi zakatil fitri sallallahu alayhi wa sallam nee weeru koor su ko nit ki wooree dem mat te génnewul muuru koor te man ko kooram diggante asamaan suuf lañ koy at du dem oh, uh, du dem du dem du dem kañ lay dem kañ lay dem jamono boo xam ne ki nga xam ne génnewu ko woon rek génne na ko bu ko génnee rek mu dem su ko génnee rek koor ga dem dem ki ko man ki ko man waaw waaye ki dem ba mënu ko nag kenn du aj kooram te dina ko wàcc ki woor be koor gi jeex amul daara lu mu génnee muuru koor wàcc na ko yàlla gën a xam ki am ak ki ñàkk ok ok jërëjëf yàlla gën a xam ki am ak ki ñàkk waaye ki ko am te man ko sàggane ko génnewu ko kooram dañ koy aj dañ koy kañ lañ koy aj saabu ko génne te biir biir génne bi itam ah, defe naa dinañ ci ñëw mhm. niñ ko war a génnee niñ ko war a génnee ak génnee ñan lañ ko wara jox ñu ko wara jox ban waxtu lañ ko ak ban waxtu lañ ko wara a ban waxtu lañ ko wara di mokkoli jërëjëf ma gaay yi tax nañ att waaw dañ la xat loolu la bëgg waaw dafa am rukk yo xamné mm-hmm. ki tok man na koy fàtte mm-hmm. waye ki muy toogandool mo koy fàttali koy dimbalé aw loolu loolu la mbolo di jàng mm-hmm. ak jamaatu rahma yéen ko kon jamaatu rahma buñ bëggé dem ci muru koor dañuy dem ci ni fitre la ko arab di tuddee mooy asakay dog asakay dog waaw zakat mooy asaka asakay dog ñu di ko wax ci wolof muuru koor an ibni abbasin radiallahu anhu qaal farada rasul salallahu alayhi wa sallam zakat al fitri tuhratun lisaimi min allahwi warrafat wa tu'matun lilmasakin faman addaha qabla salat fahiya zakatun maqbulatun ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقات رواه أبو داود أنا حديث بوبو حديث بوبو دوينة كيني مورو كور جنة كلو أم صلى الله لو حديث بتكي وقت لو حديث بتكي جنة من ابن عباس كيني أقام نموي فوري خيبي باي بو ناو نتي يونن تبي صلى الله عليه وسلم باي صلى الله عليه وسلم كون لول ويرنا ويرنا mu ne farada rasul sallallahu alayhi wa sallam yonent bi farataal na lan la farataal zakat al fitri asakay dog mooy muuru koor farataal na ko ci kaw ñépp ñi nga xam ne ñi woor ak ñi wóorul ñëpp koy ñëpp ko war a génne ñëpp ko war a génne lu ko woor rek koy génne mm. ki woor dina ko génne ñi wóorul dañ leen koy mm-hmm. génneel mm-hmm. danañ ci ak danañ ci agsi léegi mm-hmm. waaye nag génne bi buñ ko génnee lan lay jëriñ hmm. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne tuhuratun li saimi min allaxwi wa rafas hmm. dafay setal aji woor gi. Hmm. ci caaxaan yi mu doon jànkoonteel ndax ci biir koor gi ak ci bitti koor gi nga ne ah maa la wax loolu yàlla kay duna la kaay ma ragal ci koor gi waaye la ca gannaaw koor demal ak sa tilim nga ne murum koor daf lay lan murum koor dafay ragg nit ajaa daf lay ragg dafay raxas nit ci ay bakkaar ba mu set wecc waaw xanaa xamoo ne qad man zakkaaha ci weer wii la wàccoon te yàlla da ca giñ hmm. qad ca dëgg-dëgg yàllaay wax de hmm. aflaha texe am na may ñu déglu ah, ñu déglu am na asalaamaaleykum maaleykum salaam Ndeye Seynabou naam Cissé Cissé Aji Mari Cissé Cissé Cissé ñu ngi lay dégg Cissé na nga def baax ñu ngi sant yàlla. waaw kay waaye a koor gi. di leen siyaare si waxtaan bi. jërëjëf ñu ngi lay ñu ngi lay fay. bëggu bëgguñ leen woon sax pour dagg waxtaan bi. dëgg la. Mhm. waaye ñu ngi siyaare imaam ak ñi fi toog ñëpp. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Cissé jërëjëf. di ñaan yàlla yal nañ fekkee déwén. amiin yaa rabbi amiin Cissé. man li ma doon laajte si muuram koor mi. waaw. Eh, eh, ceeb. Mm. bi nga xam ne moom la ñuy dundee. Mm. damay dégg ñu bari naan xaalis bi. Mhm. moo gën a yomb a joxe. Mhm. ma bëggoon a laaj imaam pour ceeb bi ak xaalis bi ban moo gën a am farata. Mhm. ak naka lañ koo defee. baax na. asalaamaaleykum ko ci foofu balaa ñëw. waaw bala ñoo jàll kon euh, Adja ñu ngi lay ñaanal koor bu ñu nangu yàlla na ko yàlla defal. laaj bi dégg nañ ko leer na la. ñu xaar tontu bi. li nga doon dundee mm. moo xam dugub nga doon dundee moo xam maalo nga doon dundee mm-hmm. ban moo ci gën ban ci gën dama lay tontu ne maalo bi moo gën maalo bee gën parce que xaalis bi mm. loolu xiyaas la mm-hmm. xiyaas mm-hmm. xiyaas mooy jamono day dox ba mu jàggu ñuy nattale te ñu bari jàpp nañ ne sayyiduna muhammad li ñuy roy mus ta génne muuru koor nag ci xaalis mus ko génne ci xaalis waaw musaguñoo taseeg benn téere wala benn borom xam-xam boo Muhammad koor jeex na mu génne ko ci xaalis kon da ko daan génne ci tàndarma ndax tàndarma moo gën a not ca jamono booba foofa su dul tàndarma mu génne ko ci yeneen xeeti dugub téere yi itam yeneen xeeti dugub la wax ceeb wala dugub wala lu mën a doon kon loolu moo ëpp ngëneel nga génne ko ci xaalis waaye ba tey borom xam-xam yi xiyaas nañ daje ne du aayit nag ñu génne ko ci xaalis ñu ne ngir lan ñu ne kiñ koy jox nag léeg-léeg dina soxla xaalis mm-hmm. te dañoo bëgg lu mu dimbandikoo rek ci bis boobu mm-hmm. ci jamono jooju mm-hmm. waaye liñ koy bëgg bëgg bëgg nag nañ jiital nag li gën buñ demee ba mënuñu ko nag ñu fab li ci topp parce que lii nee naa la bunt la boo xam ne xiyaas la waaye li gën nag mooy nga génne ko ci li gën a not ci li waa réew mi dunde kon réew mi li fi gën a not li ñuy dunde mooy maanaam mooy maanaam waaw naka nag ki nga xam ne jox nañ ko muru koor bi te moom dafa soxla xaalis waaw ah. lu tax moom mun na caa jaay pour jëriñoo xaalis bi. jeex na jërëjëf ajaratu. moom mun na caa jox nañ la muuri koor. waaw muy saaku. maalo am na ñoo xam ne sax xëy na léegi ñaari saaku. waaw parce que nit ñi ndeysaan tabaarakallaahu. niñ dëkkee dañuy joxe bay joxe lu bokkul ak muuru koor. am yoo xam ne dañuy natt muuru koor ba pare. Mm-hmm. nattaat lu leen neex teg ca dem joxe. dëgg la nga xam ne leen leen gis miskin bi am saaku. Mm-hmm. wala mu am ñaari saaku. Mm-hmm. lu tere nag mu jaay benn saaku bi. dem jënd ndawa wala mu dem jënd fay ñawi ñawi xale yi kon daal ay soxlaam rek kon daal li ci tax génne ko ci dugub moo gën li nga xam ne moo ëpp nga neel mooy génne ko ci dugub génne ko ci dugub moo ëpp nga wala mooy dugub mooy dugub rek mooy li ñuy waaw ah, mooy dugub jërëjëf delluwaatal ci foofu waaw nga ne ci murum koor dafay setal murum koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tuhratun li saaimi mhm. dafay setal ki doon woor mhm. minal laxwi mhm. ci caaxaan yi mu doon jànkoonteel ci biir koor gi mhm. war rafas mhm. ak rafas baatu rafas nag mhm. buñ ko waxee ci arab mooy lépp loo xam ne góor dana ko séq ak jigéen dala ciy setal ci biir weeru koor bi foofu mat naa bàyyi xel de eh, mooy ki nga xam ne dafa amee soxnaam ci biir kër gi waaw xam nga du ñàkk ne ñaar ñu dëkk te bëggante waaw mën nañu fakkatal <laughs> mën nañuy xoolante ci bëccëg bi xoolante yoo xam ne bokkul ci koor gi wallaay wallaay fóonante ngeen baal ñu ci kàddu gi. dañ ko war amaana sax fóonante ci biir bëccëgu weeru koor bi. dëgg la ndax yéen a bokk